jërëjëf waa kay jërëjëf ñi ngi lay sant baax xam naa nag ci yow lañuy ñuy yëkkatee jotaay bi sëñ Samba Tall Touba Béthio wooyu tool du eh, di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne jaar nañ fi ñëpp ki kàddu gi nga xam ne sëriñ Mouhamadou bari moo ko joxe di wax leen ku la yéenee booyu tool du la soññ ci waar wi loolu nag ñi fi dugg ñépp dañu ko wax kenn ku ci nekk rek ni nga ko waxee dafa méngoog ni baat bi amee moo tax kenn amut ci yokk xanaa gën dëggal li wax mboolem ñoom ñi fi jaar nga xam ne booy xool ni ñu ko waxee mooy buñ waxee tool rek jubluwuñ ci ka xëy yenn ab bayu kaayam mbaa mu war ci ab sereetam mbaa mu yëg ci aw fasam mbaa mu yor aw jiwoom naan day dem di bay nga xam ne ñoom tënkuñu ko foofu rek waaye dañ koo tënk ci képp koo xam ne rek la ngay liggéey di ci suturlaw mooy sab tool kenn ku ci nekk fa ngay xëye ak a wàcc di fa sabablu ngir yàlla fekk la fa ak ndimbalam mën nañ koo jàppe ab tool mbir moo nekk nag dina am ñu la noonoo xanaa day am ñu koy fésal am ñu koy nëbbu waaye ku amul noon yombul a gis te lu ci bari nag bala ngaa xam say noon ak say soppe da ngay def ak giraawaal yi wala nga dugg ci ay jafe-jafe dana am ñoo xam ne bu ñu ko déggee rek danaan béttuma woon bu ñu ko déggee rek li ñuy njëkk wax mooy béttuma woon day mel ne dañoo toogoon doon xaar lu mel noonu dal la kon koo gis muy dox rek am nañ ñu koy xaaral musiba waaye li fi ak musiba dalu ko rek duñ ko ñemee feeñal duñ ko ñemee biral duñu ko ñemee wax waaye yow mi nga xam ne moom jukko ju rafet ngay yor. di ko jéem a roye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa dangay ngay jàpp rek ne ñëpp say soppe lañu ndax bari nañ ñoo xam ne li ñu lay wan mooy dañu laa bëgg waaye li ñuy dund mooy bëgguñu la li fi ak yaa ngi nekk ak ñoom di nekk ci jàmm doo mën a xàmme ñi la bëgg ak ñi la bañ waaye soo demee ba nekk ci ay jafe-jafe nag ci ngay xam bennet bennet yi la bëgg ak bennet bennet yi la bañ. waaye bañ nit dafa bëriwut njariñ koo xam ne la ko sunu borom di jox bawawut ci yow jaariwut ci say loxo it nag lala sunu borom di jox it bawawut ci moom jaariwut ci ay loxoom kon bu bëggee noppalu bakkuk la ko yàlla sédde te yam ci li la yàlla sédde la nga demee woon doon ko ko soxoree ñaanal yàlla li nga bëgg yàlla defal la ko moom boo ko mënta ñaanal la bëgg itam nga bakkal la ko yàlla jox du la yokk du la wàññi ndax moom boo waxee ba mu am musiba mbaa mu nekk ci giraawal yi yow bu boobaa lu lay yokk ak lu lay jariñ la lay jariñ loole nga ko yéene mën naa am bise ngi ñëw sa bis dana ñëw te nit ñu bari nag loolu la ñu réere dañoo jàpp ne yéene sa morom sa moromum bindeef moo xam jullit la moo xam du jullit waaye tey bu ma doon wax dama naan yéene sa moromum jullit musiba dal ko bu ko ba dalee yow lu ma lay yokk ak lu ma lay wàññi yow boo taxawee temm ngir xañ nit ki lam yor ba mu ñàkk ko ndax di nga ko yor yow kay bu fekkee loo bëgg jort nga ne yàlla dina la ko defal ñaanal yàlla mu defal la nga bëgg. yow boo ko mënee ñaanal la mbëgg mu am ko waaye xam naa sax doo ko ñaan loolu ndax yéene woo ko ko waaye boobaa nga bàyyi ko ko la ko yàlla jox yow te ngay am ci li la yàlla jox te ñaan ko mu yokk te sax ak yow waaye iñaan amut njariñ ñu bari nag dañoo dem ba bugg ko boole ci dund bi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom daal képp koo bokkal waar rek boo sañoon waaram booy ci liggéey yëpp nag am na ku génn léegi wax ko dangay ngay bokk ak benn atlie yàlla di ko dogal muy am ay client wala ñu bari ay xamee yoo xamante ni ne xëy nañ ñoom dañuy fexe nu mu yokkoo waaye yow moom sa yéeneeg sa mébét yépp mooy sa xool bi moom boo sañoon lii ko yàlla jox yàlla ne ko jox la ko mbaamu boole ko yi ñaar ñëpp xañ leen ko loolu ban njariñ la la amal. bu ko defee nag yooyee dañ ko des na ko feeñal ci ñett yenn saa yi nit ki bu la bañee dana la wax ay kàddu yoo xam ne daf lay leer naññ ne dalaa bañ mbaam mu lay waxal ay kàddu yoo xam ne daf lay leer naññ ne bañ. mbaa mu lay xoole noo xam ne daf laa leer naññ ne kii da laa bañ yooyu nag ki koy def amut lu mu koy jariñ ndax moom moo lay bàyyi xel mooy xam sa tolluwaay moo xam ni ngay doxee waaye yow sa yoon nekkul ci moom yëgul sax ne mere nga ko yëgul ne sax yaa ngi koy iñaane wala yaa ngi koy xañ bu ko defee nag ñu xool xoolaat xam ne mbañal ak noonoo nit bëriwut lu muy jariñ ki koy def bu doon nit ki lu mu bëgg lu nekk yàlla fekk si ko ci kon kenn du tekki dara wala bokk ñu bari dañu tekki ndax am na ci ñoo xam ne yàlla moo leen nattoo soxor te gis nga soxor dafa amutug mujj bariwul njariñ yow ki nga bokkal waar wi wala ki nga bokkal liggéey bi wala ki nga bokkal tool bi nga di ko iñaane te yow saa yoo xëyee gis ak dolliku te moom yëgut ne yaa ngi koy bañ yëgut ne yaa ngi koy yéene musiba yow boo toogee seetlu setantal war ngaa xam ne yow dafa mel ne li nga koy yéene yi koy gën a puus muy jàll kon noon yu bari ñoom ñi ngi dooleel ki ñu noonoo te yëguñu ñu ngi koy dooleel ndax yow li ngay bañ ma def ko mooy yokkute sa mbañ gi moo koy yokk kon kay bàyyil bañ gi soppi ko bëgg rek mbaa nga soppi ci maandu waaye koo xam ne yow foo gisee lu baax lu nar a ñëw ci moom nga détourné ko foo gisee kuy wax ci moom lu rafet nga xajamal ko foo gisee ku ko yéene lu rafet nga jéem koo yàq yow bu boobaa lu mu lay jariñ boo ko yàqee du tax ñu yéene la ko nit ñi moom la ñuy yéene nit buñ ko yéene duñ la ko tàggu lañuy defal nit bu ñu koy def duñ ko tàggu lañ lay wax nit bu ñu koy waxal ci lu rafet duñ la tàggu yow lay sa wërsëg xaar ko li sa xewal xaar ko bu dikkee da ci jot sa yàqal kenn ndax mënoo yàqal kenn ku mënta maye nooy mën a yàqe yow soo mënoon a may sa bopp ngay njëkk a may mënoo may sa bopp bëgg a yàqal ab jàmbur ñu bari nag dañ ko bëgga a boole ci programme bi te bokkut ak dara programme bi nit ki mën nga dund di am li nga am te doo iñaane kenn doo soxore kenn bokk na nag ci liy waral ak soxor ñàkka a maandu gis nga soo maanduwul di xool nit ki fa muy xëy ak fa muy wàcc ak la muy am ak la muy ñàkk foo jaar da nga soxor ndax boo xoolee ba gis mu am loo amut mbaa mu jaar ci yoon woo xamante ni ne yoon wii mooy yoon wi te yow jaaroo ci yoon woowu boo sañoon da ko tërëfal mbaa nga gàllankoor bokk na ci li jiit di maandu koo xam ne joxoo kom xëy joxoo kom ngont moyoo ko yokkoo ko yow loo ko mën a wàññi mbiram yàlla jaaralewu ko ci sa loxo yàlla néew la ay mbiram teg naa ko ci sa loxo mu leeral naa ñu ne yow bu fekkoon ak ruuxam xam nga fa mu nekk ab nen la ba léegi ne nga ko pëjëx mu toj bu fekkoon ak fiil la ba léegi fekk nga ko mu dagg yàlla nag dalaa musal ci yépp xama fu room gi nekk xama fu wërsëgam di jóge kon bu boobaa teraanga ja ko yàlla jox bàyyi ko ak moom moo xam ki nga bokkal tool ba moo xam ki nga bokkal génn kër bokk benn sëriñ bokk benn borom kër baa ngeen bokk fenn fi ngeen di xëy ko wàcc ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk boo nekkee ci li nga war a nekk maandu sunu borom dana la teral dana la yëkkati te kenn du ci man dara ku la bëgg a daaneel sunu borom daaneel ko. nit ñi génn nag wax nañ lu am solo gis nga xam say noon ci boppam wala ami noon dina la yokk jom ndax dina tax loo nurutoon a def ci lu lay dugal. danga gën a yokk sa loxo ci bàyyi ko ndax di nga xam ne am na ñoo xam ne li ñuy xaar mooy nga nërmeelu rek la ñuy xaar waaw ñi nga nërmeelu rek la xaar ñooñee nag yow yaa leen di xam nga di leen moytandiku bu baax a baax buñ ne nga di leen moytandiku nag nekkul bu leen seen laqatu taatu garab bañ jàll ak daw di dugg ci ay miir ak déedéet fa ñu lay séentoo ngay bañ a jaar fa ñu lay séentu wala la lay séentu da ngay fexe yow bu ca jéem a teg sa tànk bu ko defee ñoom lañ bëgg ci duñu ko am. UCAB FM am na ñoo xam ne ba ñu ne daleen noonu kenn xamul kañ la buñ sañoon saa yu xëyee rek dégg ci yow lii lu mu doon mbaa nga wopp mbaa nga tawat mbaa nga deltu ginnaaw mbaa nga arrière mbaa nga ñàkk mbaa nga nekk ci ay problème mbaa nga nekk ci ay jafe-jafe yow nit ki bu nekkee ci problème nga taw di ko waxtaane ba njëriñ la am nit ki bu nekkee ci ay jafe-jafe loo ciy kontaan loolu ci kon yow sa bis a ngi ñëw di xamagoon nu muy mel mën naa am la ko yàlla jox suñu borom nekk mbir mu rëy nga di ko ko yéene bëgg mu yokk te fekk li ko yéene yépp moom rek la jëm si kon yooyu yëpp nit ñi war nañ ko bàyyi xel du ñëpp a koy def nag waaye mbir mu ci ne rek du ñàkk ku koy def ki koy def bu ko déggee na xam ne lii kat moom mooy borom ab yóbbal la boo xam ne na ko bàyyi xel te xam ne ki yàlla teral kenn mu ci dara ki yàlla nuru yëkkati du tàggu kenn bu yàlla doon tàggu kenn du jóg bu yàlla doon tàggu kenn du jóg ndax bari na ñoo xam ne buñ sañoon ñoom dong ñoom kott ñooy avancé ñooy yokk ñooy am ñooy yor ñoom la mbiri nit ñi nekk ci seeni loxo ñoom la ñuy séentu ñoom la ñuy séen waaye nag yàlla daa waxul kenn dara kon nit ki soo bañee soxor da ngay maandu ci yu bare bari lu sa yoon nekkul da nga ciy génn maandu ci sa dëkkandoo bii nga xamante ni ne yéen a bokkoon di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba tey ak njaboota màgg tàmmali dimbali tàmmali koo teraal yow mi nekkoon ab xaritam ko bëgg a xëy nekk ab noonam ngir lan ngir teraanga ji ko yàlla doxal mais yow soo mànd woon bañ a xool li muy am ak li muy ñàkk mën nga ko bañ a soxore waaye gis nga ne yéen ñaar yéen doon sonnandoo benn bis mi ngi tàmmali am si mën naa am lim xaar am nga ko xaar yow itam da am bu ko yàkkamti kon ni nga doone noonu ak soppeem ci ak ndorteel ba mu tàmbalee yokk ndànk-ndànk dogal continuer sa sopp ak itam nga continuer sa li nga newoon rek bis dana ñëw ni ko yàlla tàmbalee teral mu la koo teral ni ko yàlla terale mu teral la ko mais bul yàkkamti mukk ba yàqal sa bopp nit ñi nag ñu ci bari seen coxor xamuñu fu muy jóge ci ñoom xamuñu fu ñu dañuy jékki-jékki rek xam ne ñoom soxor lañ mën nañ ko bañ a xam sax nit ñee koy xam te lu ci bëri nag ci seen i wax lay feeñ ak ci seen i doxalin gis nit ñi ku soxor jàpp nit ñi xamuñu ko yaa ngi nax sa bopp nit ñi koo soxor da ko yëg nit ñi dañuy maslaa rek ndax nit ñi bari dañoo yeewu léegi bu leen iñaane ñoo la gën a xam ne leen iñaan mais dañ lay bàyyi ci biir rek mën lañ koo xamut ndax dañoo xam ne yow lii nga def daa amutu mujj ndax soxor moom li ci jàngkat yi wax wala borom xam-xam yi liñ ci wax ne moom dafay mel ne sawaraak matt rek te xam ne sawaraak matt moom day gën di xam rek sawaray gën di lekk kon xol nag moom noonu lay lekk jëf ju baax saa yu sa xol bonee yéen wu nit ku lu bon li nit lu baax lu lu bon rek moom noonu lay lekkee sa jëf ju baax te lépp luy lekk jëfal jàmbur ju baax rek jar na moytandiku kon ak soxor amutuk mujj na ko nit ñi wàññandiku nit njëkk laa am taxut mu gën laa am nit mën na laa njëkk a tekki te du la gën a tekki nit mën na laa njëkk am te du la gën a am te gis nga li feeg yaa ngi dund ñëpp naan dama laa bëgg dama laa bëgg da ngay yeex a da nga a yokk waaye faw nga dem ba am ay noon ndax ñi fi jiitu te baax ñëpp dañu ne noono ba bañ xam ne dañu leen noono ñu gën a yokk seen góorgóorlu ak ci luñ mën a doon nag bu fekkee jaamu yàlla laak liggéey ak lépp lu mën a doon rek boo demee ba xam say noon ci ngay amee jom tey ji bu fekkee sax da nga xëy di wàcc ñaan moo moom ko la muy xëy baaxut amul njariñ du ca yokkee du ca defee nii du yow dégg ko nga dégg ñu la koy wax rek ngir ñu bañ a am ndam rek yow dina tax lépp loo mënoon da ko def loo mëntoon da ko jéem ndax nit ñi bari na fa ñu lay séentu foo xam ne boo fa yeggoon rek seen jàmm seen kontante lay doon waaye yàlla mën na laa aar ba fa ñu lay séentoo ñoom ñoo la fay jiitu yàlla nag ci boppam moo xool ci jaamam yi defal leen lu leen neex am na ci ñoo xam ne ku leen di séentu ci pax da nga ci nërmeelu ku leen di séentu ci yàqule da nga yàqu ku leen di séentu ci faatu danañ la suul mbaa ñu dikk sa dëj yu koo gis ku nekk yéene ko lu rafet yéene ko lu baax ndax yàllaay xool ku ko neex defal ko la ka neex sa kër gi da ci yow sa njaboot goo xam ne da leer naa ñu ne sa doom ji sax day tooñ waaye bu tooñee danga koy faral di ko làq bëggu kenn ku dal ci kawam ndagam yow mu yor sa doom jooju yaa sañ ci lool moom asamaak yàlla mu yor jaamam yi sañ ci ñoom lu ne sañ ci yow lu ne moom la comme ni mu ko moomee bu ko defee nag am na ci ñoo xam ne yàlla moo leen beral loxo ñooñee nag boo leen xam ba dal seen kaw yow lay wàññi waaye du leen wàññi ñoom dara kon nit ki soo xamee lii na moytandiku ak coxor ak soxor nag boo ko bëggee bàyyi da ngay mànd lu su yoon nga nga génn ca waaye dañ kumpa dañ kumpa diw ci lu muy nekk lu mu yor léegi fu muy xëyee fu muy wàccee ñaata kër la am ñaata oto la yor ñaata soxna la yor ñaata njaboot la yor fu muy dem ak lu muy yéeg ak nangam nangam yooyu boo ko defee faaw nga iñaan ndax bu amee ba am loo bëggoon te amoo ko rek faaw nga jural ko ak coxorte te ah nit itam mënoo dëkk moom foo toll mu nekk ci musiba boo boo soñoon foo toll mu nekk ci musiba munta ne ndax nit ki yàlla moo koy jox yàlla moo koy xañ saa yu xëyee nekk ci la ko war boo xëyee nekkal ci li la war bu ko yàlla teralee yàgg yàgg yàlla da la teral ni la yàlla di teralee tam bu jàpp ne yow dong la yàlla war a teral ba boo ko boo seen ñëpp ñàkk teen boo naanee boo noppee fas ko yéenee suul bañ kenn naan ca mu ñëpp defoon na yow kon doo sa ci teen boobu ndax teen ba njëkk ko fa doo fa mujj kon teenub xéwal bi boo ci jiitoo na nga xam ne da nga cee jiitu rek waaye am na ñu la fa jiitu woon waaye ñi nga fi jiitu itam yàgg-yàgg dañuy egsi doo fa sax rek na àdduna moom ñaari dong la lépp loo fi am da nga dem bàyyi ko fi mbaa mu dem fi rek ndax loo fi am lu ne fi nga ko fekkoon am na ñu la ko jiit ñu la fi jiitu woon gën la caa yàggale dàq la caa noos te tey fi lañ ko bàyyi Qaaruuna ngi ne xamoon ngeen ko yéen ñëpp dooleem bari woon na alalam bari woon na Firawna xamoon ngeen ko yàlla mayoon na ko jayoon na ko ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñoom seeni at bari woon nañ te lañ amoon ci at mënatoo ko am ci at bu nee ma la Firawna dund na toll ñeent at kooku yow dalay leer nañu mënatoo koo dund Namrus jaar na fi Buxta Nasar jaar na fi ku nekk jaar na fi ak sa mbooloog sa dooleeg la la yàlla mayoon nga di ko caaxaan di ko fooy def da ngay sax tey ngi ni da nga kenn xamatu ci loo nekk kon yow mi nga xam ne yaa nekk ci àdduna bi di dund gën ngaa bari boo amee juróom-ñaar fukkat juróom-ñett fukki at fi mu nii daanaka doo xàmmeeti lu bari téeméeri at moom kon bu boobaa nag kon da ngay xam ne dund gi lu gàtt la jëta soxore kenn jëta iñaane kenn fexe ba la yàlla jox nga terlu ci teral ci koo war a teral téye sa bopp maanu nit ñi moom boo leen mënta dimbali itam bàyyi leen lañ am rek bu leen soxore dara kenn ci dara sonal wuñ kenn ci lenn koo mën a dimbali dimbali ko koo mënta dimbali nag neex na nga bàyyi ko ndax lëngoo yomb na waaye koo bàyyi mu demee ki waggam yow kay li la nit ñi sant leen dong la mooy bul soxore kenn koo mën a dimbali dimbali ko waaye koo mënta dimbali kenn weñu sa loxo ne la dimbalil kii kenn weñu sa loxo ne la yëkkatil kii kenn weñu sa loxo ne la yéegalal kii dañ laa wax ne la koo mënta jàppale ba ko mu dem bu ko soxore bu ko iñaanee bul yàq deram bul yàq jukkoom bul ko yàqal dara ndax mënoo ko sax nag da nga koy jéem ba nit ñi xamee la ca koy jéem ba nit ñi xamee la ca la nga ko doon yéene far këpp sa kaw ndax da ngay dégg ñoon diw di moom fu mu toll di yàq dara diw bi diw di moom fu mu toll day yàq diw te man du ma dégg diw wax ci moom dara kon dañuy yàlla nañu yàlla musal ci yàqkat yi nga xam ne buñ sañoon fuñ toll seen morom du jàll du avancé te nit ki la muy daj bu koy daj doo ko yëg da ko ko yéene def na dajee sax bu ca dajee ba bis ñëw sunu borom fekk bidiwoom la mu doon yóotu mu jàpp ko wala la mu doon bëgg mu am ko nag nga bëgg a def ko def ko ab noon defe na ci ñàkk ci lay yàlla bindut nit ñëpp ci nga bëgg nit ki buy sonn nga yéene ko coonaam boobee bu demee ba bis ñëw yàlla yëkkati ko yéege ko nga bëgg ne lii du fi amee yow yaay sonn te nit ñi dañoo wax ne yàlla bu rëddee nga far mu rëddaat nga far da lay far rëdd ci sa kaw te yàlla nañu yàlla musal ci yàlla di la far di rëdd ci kaw ndax képp ku yàlla far ba rëdd sa kaw amul kenn ku la mën a yëkkati di la rëddloo munta ne kon yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla ñu yàlla aaral boppam yàlla ñu yàlla yëkkati yàlla nañu yàlla musal ci ak iñaan ak soxor yàlla nañu yàlla defara xol bu ret xol bu set te rafet

هدى نبي وجلال